bien lu bi nga xam ni itam doon ko exactement alors. temps temps entre temps. temps attends attends je j'ai pas terminé non non Cheikh ma sais ma taxaw lu sëñ wax par rapport ak Ousmane Sonko su koy seetlu su koy fois euh, li muy mais quand même euh, nous ñu une wedd ko tay ñu gis une euh, évolution si discours ki nga xamné que Moustapha attaqué ki que Ousmane Sonko ak ñu fa concrètement si def. man hmm. la bu la mën problème comme nak ma laaj. mo wax la sama xalaat ci wal politique la lay wax mais xam nga. <laughs> loolu taxaw quand une question est précise. ok ça va c'est comme l'énoncé ça permettra. que ki lay tontu mu xam. Mm, mm, voilà mm. parce que li nga laaj dafa nekk actuel dañ jóge ci gamu OK gamu gi yaakaar naa ki mom gamu gi mom bis bi muy sangu-sang Seydina Mohamed sallalahu alayhi wa sallam le sceau des sceaux maintenant gamu gi ça ça peut être une turbine parce que mbolo moy ñew et puis euh, tay ku mel ni sëñ Moustapha Sy dafa am ñaari tank dafa am ben Tank, bo xamni tank religieux la Tank, tank bo xamni tank leader politique la euh, d'autant plus que tay parti pur bokk na ci échiquier politique plus de 30 ans participer à ci ay combats démocratiques yu euh, na une force non négligeable. une mm. force politique je te donne l'analyse politique directe yaa ngi xamoon nga maire boobu maire Binta Faye ni mu ko doon maire hmm, localité de localité. la c'est une organisation structurée fu nekk localité organisation donc organisation politico-religieuse d'autant plus que tey ñu ay alliés de Pastef. Maintenant, dans les alliances, il y a deux types d'alliances. Il y a une alliance politique et une alliance électorale. C'est différent. dañu demoon ñu bokk beaucoup Pour wi pur bu Puis, ba sax allié wu Khalifa Sall gënoon à un moment donné parce qu'on a vu que Khalifa est ci contrainte C'est sëñ Moustapha monté au créneau sommes ñu nekkee ci taxaw sommes ñoo ànd ci élection locale nous tamit ñoo élection législative c'est ñoom coalition dañ né bu présidentielle jotee nañu candidat yu bari ku nekk nga sa la waxanté

élection yi de wute parce que géopolitique de faire dynamique et tay Pastef a besoin de d'avoir des alliances fortes des alliances soudées et renforcées parce que lesquels nous mënul dem dans une dynamique en solo donc c'est c'est un mouvement de grands ensembles et ensuite il vaut mieux avoir PUR comme allié plutôt que d'avoir pur en face Amna na sax ñuy wax la waaw lii la amoon deux en terme électoral même fable de La Fontaine la wax on a toujours besoin d'un plus petit que soi donc dans ce jeu am say nit yomna mais téye leen moo maintenant nak comme yaa ko waxal sànq sa Ben amna lo xamni lu nekk ci biir les waxul lo xamni peut-être ñom ñuko sék ñom ñoko xam donc pour man c'est Ousmane Sonko qui a tout intérêt à raffermir ces liens qu'il a eu avec eux à renforcer li nga xamante cette alliance politique man faut la wax parce que tu législative euh, yi demoon nga présidentielle il faut savoir analyser une élection ils ont obtenu 54 mais sur les 54 il y a des gens de Pastef am na ñoo xamante ni sax am nañ candidat mais xam nañ ni bu ñu votelee seen candidat seen candidat du gagné ils ont voté utile am c'est des indécis ça veut dire que au dernier moment les ñuy décider mais taille politique arithmétique la c'est de l'addition donc plus ngay bëgg asseoir ses légitimité te ñoom tey fi ñu ci nguur dañu gagner benn bataille muy mm. présidentielle mm. mu dese mm. leen une bataille Une bataille bi assemblée nationale déjà gis nga difficulté bi ñu am andi projet de loi pour tas benn mbir ñii ne du ko tay c'est un avantage moi majorité pour une majorité la politique c'est l'art de faire des compromis et pas des compromissions donc ils ont plus besoin d'être euh, d'avoir des alliances soudées donc pour moi c'est Ousmane Sonko et Pastef qui ont plus intérêt à conserver hmm. leur, alliance stratégique voilà alors donc exactement par avoir à euh, la sortie justement Euh, de sëñ Moustapha Sy daal di ñëwaat si nu mu gën a yaatu si wàllu wu nu mel nee na aussi mi xaar li nga xam ne que moo di législative yi ma leen fàttali. est-ce que dégg nga li ma la xam ni itam. Hmm? maanaam tey si législative yi la ñu ah, dëgmal. Hmm. tey ñii dañu soxla am majorité boo soxlaa am majorité am nga loo amoon danga koy téye wut loo ci dolli. Hmm. waaye tey am na fu ñuy toll euh, bu pur génnoon dem jàkkaarloo ak ñoom ñoom ñoo ci. Nous avons ñoo mm. parce que du point de vue politique et stratégique nous avons un ak mm. alliance politique une alliance électorale est-ce que justifié exactement jour le fait que Massata guen a Massata Massata le député du PUR euh, euh, exactement wa mais loolu yëpp mën na nekk mën na nekk ay signe annonciateur parce que ñooñu dañu bokk ci pur mm. euh, bu fekkoon waxuñu ko ça veut dire que am na yoo xam ne am na parce que tamit euh, bu amee allié il faut savoir les gérer moi je parle politique hein, il faut savoir les gérer parce que euh, Guirassy c'est un allié tey gérer nañ ko il a un ministère Aïda Mbodj allié la parce que am na lu mu représenté à Bambey am na mm. mbooloo bu mu am mu ngi ci ci ci DER donc en terme d'évaluation est-ce que waa pur gis nañ seen bopp ci ànd bi ñu ànd donc ça aussi euh, bu fekkee ni am na loo xam ni ñagas ñagas la si donc Ousmane Sonko a tout intérêt à moom mu discuter ñu concerté wu pour xool euh, lan moo ci nekk seen seen seen avantage parce que ñoom dinañ am un profit un regain politique buñ ciy tiré d' autant plus que ils vont aller vers des législatives et tout n' est pas encore acquis d' avance. alors merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ça a été un plaisir bàyyi nga daal tàggatoo ak euh, téléspectateurs yi ah da nga ci man man doyalu hmm. moon ci yow dese woo yeneen sama ah, plan jeex na instant yi ponk yi leen waxtaane woon leen defoon briefing hmm. ah, léegi li ñu def briefing la ñuy waxtaane waaw léegi noonu baax na am na solo <laughs> non man awma problème boobu c'est-à-dire <laughs> euh, j'aime bien débattre ak yow parce que pour man euh, débattre c'est c'est donner son point de vue mais aussi il faut nga fi nekk te loolu sa rôle la sa rôle la parfois maa nga tànc ma mm. gësam ma yooyu mais xam man ragalu ma yow nangu ku la man bañu ma ko c'est-à-dire <laughs> non non man bañu ma kon la laay bañ nga mélangé xam nga yow da nga maa laaj non dem nañu waxtaan <laughs> non nañu waxtaan Fall <laughs> ah, non nañ ko waxtaanee fii cest à boo ma laajee euh. ab question ah, si li ngay tontu ñu doon léegi man ma commencé la cee tontu nga jóg ne bërët si li ngay tontu déedéet déedéet mais li may tontu mënoo ko xam parce que tontooguma la mais man tont balaa maa mbéj sàmba da ngay xam lu gémmiñam di wala <laughs> mais boo ma laajee fii balaa maa commencé wax nga bëgg ma si dugal feneen day mel ni da nga may orienté loolu doo nga la de. Ah, damay orienté say. man daal ku ma diri laay bañ. say say man daal ku ma diri mais en tout cas man samay tontu. Euh, luma gëm lay wax et puis c'est clair ci man. à euh, niveau euh, pour moi le plus important. la pertinence était là Comme dans ci comme le briefing da am ben sujet bo waxul moy inondation inondation surtout je pense que laaloon nañu ko se conseiller ministre bi. waaw mais exactement. voilà. Ah, la pertinence était au rendez-vous merci beaucoup. non non la pertinence man amu problème. non ah. dama né inondation bi. dañ wax allez-y dama ñu lay déglu. li tax ma insister si moi.

nous def appel à la solidarité Nous avons contribuer euh, xam nga numéro Touba ci kanam wala am nga fo xamantene am nga kër te nekkuloo fa. te am na ño xamni ne loru nañ. Mm. mu mën nek une parfaite solidarité. Mm. je crois que euh, message la bu mu joxe en posant mm, un acte fort à Touba donc dañ ko ci ñaanal yalla yalla may ko jamm may ko ci wér. je crois que message bobu la bëggoon euh, délivrer. parce que le fait que le khalife général des Mourides ce n'est pas la première fois. sagal na Sénégal sagal na sax suñu diplomatie bi nga xamé ni Turquie. am na ay tremblement de terre mu yëkkati somme boobu tamit jagleel ko waa Turquie. Hmm. Maroc gii bi nga xamante ne am nañ jafe-jafe yooyu mu def cette solidarité vis-à-vis des pays musulmans kon tey su ko defee euh, dafay nekk lu am solo beneen bi euh, la ville de Touba dafay màgg. Hmm. dafay màgg parce que tey aux derniers chiffres yi nga xam ni agence nationale de la démographie et des hmm. génnee na ko. c'est mon département mon nekkoon bi gën a peuplé mais actuellement Mbacké est bi peuplé hmm. te Mbacké moi, dëkk c'est une ville satellite par rapport à à Touba donc euh, ce qui fait que plus de politique publique en matière d'aménagement du territoire en matière d'urbanisme et d'assainissement donc hmm. état bi war na accompagner hmm. ci parce que dëkk bi dafay gën di màgg te besoin yi donc am na loo xamante ni nag waa Touba dinañ ko mais am na état dañ wax def nañ fa lu toll milliards ak lu mm. crois que biñ koy mujjee wax mooy 2023 2022 def nañ ko ci kon ndox mi du génnee nii. Mm. kon baax na e, ndegam ñu fa ça a servi. ñu mën drainer li nga xam mm. les eaux ensuite euh, sur la communication du ministère Tidiane moi je trouve que

Macky Sall a été là am na yu mu def yu baax am na ay toj-toj yu mu def mais nawet day am chaque année. Hmm. je peux comprendre que dans leur communication ñu ñëw ne y problème la boo xam am na plus de vingt ans Abdoulaye di jéem na si xuus na ci tabax na ci jaxaay terewul inondation continue Macky Sall ñëw na ñoom bi ñu ñëwee. juróom weer juróom benn weer jafe-jafe yi nga xamante ni yu bëri dañ ko hérité saa mënoon na mënoon naa comprendre peut-être dans ce sens la la la buggoon a waxee en tout cas ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ci situation yi yàlla génnee leen ci et def appel à la solidarité au Sénégalais pour ñu mën a def des contributions pour mën a dimbali ñi nga xamante ni ñoo nekk dans se situation euh, képp koo xamante ni mën nga am un moyen moto pompe wala mën nga am loo dimbali ñi nga xamante ni loolu nañ ci nga def ci beneen message bi nga xam moom lay lancé moo tey centre de transfusion sanguine dafa dafa dafa manqué stock de sang hmm. te tey euh, donner du sang c'est c'est sauver des vies parce que am na ay accident am na ay jigéen yu motu képp kuy sénégalais te nga mën ko def na ko def merci beaucoup euh, ça a été un plaisir. je te remercie et je me remercie. et merci je remercie beaucoup. tout le monde. alors euh, ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a téléspectateurs visiteurs nous rendons sur alors voilà ça n'est tout votre émission le point de l'actu merci beaucoup d'avoir suivi Cheikh que vous retrouvez Inch'Allah, ce samedi demain Inch'Allah, allah di A daal di dikkaat ak ki nga xam que moo Serigne d'ici là portez-vous bien. et le pertinent et percutant Serigne Niang sur Sénégal 5 TV. Nous sommes la ba tey nag. <laughs>